waa gis ngeen nii ñoo ngi fii nii ci waañ bu mag bi waañ bi nga xamante ne ñoo yor waa groupe bâche kii nag moom moo nekk doomu xalif bi yor commission bi ba tax na tey ñu dalal ko fi mu mën ñoo baaxee tuuti ci Ngejaga parce que ñoo ngi gis léegi ñiy ziyaar ñoo ngi gën a bari te tamit gis nañ fi loo xamante ne mbooloo mi bari na bari boo xamante ne am ngeen ay difficulté ak tamit nan ngeen gisee tamit Ngédiaga bi ni mu évolué nii actuellement nii. sangu iya, sangi Seydina Mouhamed Seydina Imam Ilahi Mahdi di ñaanal Serigne Ablaye mu yàgg fi loolu déwéer di ko ñaanal ahlu bayti rasul gi yëpp yàlla bàyyi leen suñu kanam ñu fekkee at yu bëree bëree ziar bi li nga wax am ziar bi euh, ñi fekke woon démb xam nañ ni egsiwul woon fii waaye tey euh, ci ndimbalul yàlla ak taxaw waa dëkk bi jàpp bi organisation bi ñëpp dugal seen loxo moo mu di euh, ñaan nag comme ni nga dimbali parce que nak fimne mu ëpp nañ doole trop macha allah ngeen jige ëpp nañ doole ndax daanaka bokuma ci ñi fi jitu waye yag na fi ndax ñi ngi daan togg deux mbana dañ daan tek commencement ba parce que ñun yag nañ fi ndax ñi fi nek euh, defena semaine bi ba legi ñi ngi togg di yak barki demb ñun la ñuy ñew parce que amna keneen ku ma joxoon mu leen doon togal mais groupement bi ni ñi ngi doon commencer ben mbana ñaar mais legi ñi ci 15 ba 20 xam nga ni lool kon ëpp na bokku la xalé yi ci biti ay xalé yi imam Seydi xane yi Serigne Ablaye ak dal ci biir dëkk bi ku ci nekk ni nga teg lu met fukki mbana nga xam ne kon léegi euh, ñu ngi jege appel bi daal waaw sant yàlla alhamdulilah sant yàlla yow tamit nga am ci kii bu mag parce que gis nañ xale yi yëpp koo wax rek danaa la soxna jaar soxna jaar léegi yow lan ngay dundee noonu dina metti tamit nga nekk ak ay xale war leen a tàggat ci diine parce que jamono ji fi mu toll nii pour xale yi dem ci diine bi du yomb donc nan nga leen di tàggatee ñoom ñëpp mën leen di boole ñuy ñëw ñii si waaw loolu mooy lu ñu nàmpal la rek ñun comme ñun bi ñu nekk xale dañu ci tàggatoon te xale yi macha allah ku ci judd rek diine ji moo la ñor xale bi laa defe naa buy jàng wax sax si kar lay jàngee wax moo tax day pour nga jàppale leen pour ñu mën a dem ci diine ji bàyyi laak mom ndax xamna nañ xalé xale yi demuñu feneen lu dul ci diiné ji non kessa nañ leen di andé ak ñom parce que ak waccé suñu bop ndax bo xolé fi jotaay bi ay maga ngi fi ay xalé ngi fi ay ño xamni ño la mëna jur ño ngi fi té dañuy and ak yow liggéey ak yow liggéey bu set bo xamni ma sha allah xalé yi nak ci loolu lañuy xol bañ fi nekké ba légui diiné xalé yi di dundé ak ñun ño xalé yi ci lañuy xol di xol ñom ni ñu wara dundé ak mag ñi loolu kese la mu yomb bay bëgg dé ma sha allah diiné moo mën a defar lépp diine rek moo mën a lépp daan togg ay cinq genre yooyu léegi tey nga ñëw da ngay toog ñu jox la ay liggéey yu sew sewaan koy def xale yi nekk nga toog nii di leen xool loolu lan la lay def Serigne Ablaye kontaan kontaan ndax man yàlla daf maa nattoo ay waañ ci diine boo xoolee groupe bâche appel ko seet nañ fa def vingt jours dix jours avant dix jours après léegi ni may toogee noonu parce que lu ma laal dañ naan ma tegal lu ma laal dañ naan ma tegal ndax waroo liggéey ñuy toog te man damay bëgg di barkeelu te yàlla xam ne loolu mais bu ñuy def damay kontaan kontaan damay kontaan ba nga xam man toujours damay bëgg bëgguma ko tok di xol liggéey man so togué xor rek ma jog defal sama bop té xalé yi léegi macha allah dañ ko xam duñu xaar sax nga wax leen def leen li ndax bo xolé ni bañ ko tegee léegi tey fajar taw bi moñu ñu ni nekkon nii 1 heure midi doon na fekk midi demi ñu paré añ bu yàgg mais seenu sawarté la ndax xam nga effectif bi fi nekk togul fukki mën togul ñaar fukki mën tay tay jéré géré nañ ko macha allah sant Yalla daal alhamdullilah kontaante lañ ci am bu maga maga maga wax deug Yalla légui yow lan ngay wax xalé yi di xanaa ñu gën a gën a gën a góorgóorlu parce que ñun laayeen amuñu lu dul suñu diine ji amuñu lu dul woote Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam bi moom rek la ñu am may ñaax ñi nga xam ne ñi ngi toog seen ay kër ñu génn ñëw liggéeyal diine ji parce que nag musuma gis ku liggéeyal diine ji di ko réccu te diine ji amul tànki ginnaaw ku ci def benn déwén barki alxuraan di nga am fukk kon nag maa ngi woo ñi toog seen kër yi xale yépp nañu ñëw jàpp ci liggéey bi parce que diine ji la am moom lañ fi fekk suñuy maam yor ko suñuy baay kon nag nañu ñëw jàpp ci lépp jëm kanam barki Serigne Ablaye jërëjëf jërëjëf Baye Makhtar jërëjëf teewlu bi tamit parce que moom tamit dafa nekk bu baax nekk fii nii si Malika di tàggat diine ci xale yi rek xanaa rek ñu gën a jàppaat parce que lu dul diine rek du teggin ñu jàppaat ci rek sëñ Ablaye yàlla ko fi amiin yaa rabbal aalamiin amiin naa ma ñoon ñoo yor waañu Malika yëpp nag lu fiy xew ci diine ji ñoom ñoo ko géré ñuy suñuy yaay di suñuy maam ñu leen di ñaanal ñu yàgg fi lool lool lool te wér waaw parce que nag mënoon nañu ñëw retraité nag te defuñu ko ñu ngi ñu topp fu ñu jëm suñu wet di ñu wan yoon di ñu teg ci yoon te mënoon na leen cee bañ a fekk waaye nag diine moo mën lool moo mën a boole xale ak mag yal na ngeen fi yàgg ci barki Serigne Ablaye yàgg koo taxaw jërëjëf laay Maxtaar jërëjëf laay yàlla rek sant yàlla rek julli ci bàyyi laay salaam soxna jaara mii li mu wax ci ñun mag ñii ñun ñoo ko war a wax ci moom ndax jaara xale la dëgg la li mu wax ay waajuram lanu waaye Maam Jaara tamit sang la tama noon na ni nag bàyyi laaye sama maam man sama mam aji ca kaw di laaj adiya kon dañ koy liggeeyal di ko jox adiya wa jaar dafa bopam ma se xale ma maase ndaw ñi wa ñu de wax na ko ñun ñoko ko ñoy ay yaay waaye jaara xëccoowul ak ñu dara meer luy doy lu ngeen laaj ju jox leen ndax lepp nak bis ko waral ñi sant yalla nak du jullu ci bay laay ta xam ne fii dara manku fi amul ben yon tank ginaaw tank kanam rek loolu rek dañuy ñaan nag yalla may ko fon mu guddou and ak may ko ñun ñëpp barke Baye Laye yéen ñi amu leen fi benn jafe-jafe. amuñu yi doy na lépp loo xamante ni bi yaakaar nañ ko ci suba ba ca ngoon bala bu leen nee kar téléphone mbaa ñoom sax noonu woo maire lu fi manqué ñu wax leen te luñ leen wax dinañ ko indi ñoom xale góor ñi ko seere ñoom ñëpp di suñu càmmeñ di suñu rak ñoom ñoo seere waañu ñu ànd ak soxna jaare mi waaye lépp loo xamante ni bi laaj nañ leen ko balaa suñu kàddu root rek dañ doon indi lépp lépp fi yomb dara jafewu fi ta lépp loo xamante ni bi gis ngeen ko fi reen lépp lu fi ñëw reen bu ngeen ko seetloo yéen ñi ñëw bu déwénee day yokk waaye du wàññi ko lépp lu fi ñëw reen rek bu de day ëpp diina ji moom amul tànk ginnaaw benn yoon tànk kanam rek macha allah kontaan nañu yàlla yàlla kontaan. ngeen looloo tax xam nga looloo tax ñi suñu xale suñu doom la du ak suñuy sët dañ leen a jël forme leen dugal leen ci biir waañ wi ndax kenn ku ci nekk rek ma ku man ku ne yaay manadi a di ñun dañuy dem ba télé ñu bëgg bu ñu télé suñu doom yooyu jël suñu doom yooyu bu ñu demee ba télé suñu sët jël moo waral waañ wi suñuy doom a ak suñuy sët ak suñuy sëtaat ñoom ñëpp a ngi ci waañ wi ñun fi mu ne dañuy toog rek di leen fejarale ka defaral toogatunu yàkkatunu téye nag sunu yaay ñoo ko téye woon sunu yaay itam ban ko téyee dem ba télé ñun ñu aw leen ñu ñu sunu di seeni doom ñu aw leen ñun tamit nag ñu jël sunuy fo sunuy njaboot sunuy sët ak sunuy doom dugal leen ci waañu pour bis bu nu tëlee ñëw ñu aw ci sunuy tànk waaw xale yi danoo sawar kontaan nañu ñoom danoo sawar xale yi li leen di gën a ñaax daal mooy ndax ñun sunu yaay yi ko yore woon kenn musu leen cee xeeb ci dara ñoom lu mu sone def xeeb ñun ñii ko jële ci seenu loxo téye ko tamit booba ba léegi ñu ngi ci te ñun duñu sonn ba yëg ko lu naaj tàng-tàng nu ko yëg bu doon tawit fii la ñuy toog di taw te waaye duñu ko yëg xale yi nag loolu lañ leen di wax ñoom tamit ñu gis ñun ñuy doxee xale yi ñun tamit loolu lañ leen di ñaax ni ñu xooloon ñu nu awoon suñu tànki ndey ba egg si fii ñoom it ñu aw ci suñuy tànk ëllëg ñoom it seeni doom di ko taxawee taxawaay bi moom ca maam yàlla woon ba diggum na gën dëkkul ba ci suñu sën ak suñuy sëtaat waaw ñu ngi dëggal rek li sunu naataango bi wax. parce que moom li mu wax rek jéem li mu wax rek daanaka dara mën su ko mënatu ko seet wax li ñuy def ñu ngi ñaan yàlla si barke maam Baye lay war mi maam Seydina Issa Rouhou Laye bis bi yaa naan ko yàgg a teewe di ñaanal Baye Abdoulaye Thiam mu yàgg fi loo ta ànd ak wér si barke yonent bi lii nga xamee ne moom lañ def te gis dañuy fay bor parce que sunu yaay ñoo ko yoroon ba suñu yaay demee mën a nu jël seen relève ñu ñu ngi ñaan yàlla suñu borom ba bi suñu demee mën a mën a tudd ak suñu sët relevé nu wante nag ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan tamit ñi xam ne ñooy organisation bi parce que organisation macha allah amul benn jafe-jafe lépp lu leen la suba sa ngoon nu jox nu ko organisation dafa metti nag boo jiitee il faut mu metti waate daal ñu ngi leen di gërëm di leen sant réussite daal la ñuy ñaan te yaa nan ko yàlla defal si bis bi si barke yonent bi di ñaan yàlla teewaat fa yeneen bis yu bëree bëri di ñaan yàlla sunu borom lépp lu fi ñaan yàlla na yàlla nangu si barke maam Baye laay war a ñaan yàlla mi ñu fi dajale ren oh. ñu ñaan yàlla mu dajalewaat ñu fi ay ati ati at ñun nag ñun waa Malika ñun sant nañu bu wér ndax li xew ci jamono kenn ku ci ne gis nga ko waye ñun nak yàlla tunkal nañu bolel ñu ba xale yi ñu ngi takku rek di daw ci diine lool nak jafena jafena jafe naa gisit nag waaye fii moom Malika sha allah xale ya ngi daw ci diine ji luñu man takku rek nak di daw xale lu mu tuti tuti tuti tuti diine rek ko ñor leneen ñoru ko ñoo ci daayira xadara bi ñoo ci lu ne takku rek di daw te li xew ci jamono ku ne gis nako li xew ci jamono tas na rew yep waye ñun ñoo ngi sant yàlla di sant Seydina Limamou Mahdi moom mi ñu indil li li ñu gëm ci bu wér sant nañu ko ci bu wér ñoo ngi sant rek nag waaw wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu baat bi nag daa dee may jéggulu ni ngi ñaan yàlla yal na nu yàlla yàggalal Baye Ablaye may ko wér ak wér le ndaxte tey bu nu taxawee fi ba naan àpp ah, ginnaaw yàlla rek Baye ablaay Thiaw la ndax ma muy tudd maamam booba kenn xamul koy Baye Ablaye Thiaw Baye Ablaye Thiaw di maamam naan bis bu Ablaye Laye Thiaw ñëwee fii sama woot ñëpp dinañ ma xam man Baye Laye may kan te fii mu ne ñëpp kenn wéranteetul ñëpp xam Baye Laye may kan nu koy ñaanal wér ak wér la yàlla guddal fanu Baye Ablaye Thiaw yal na yàlla guddal fanam may ko wér ak wér la man mii wax ak yow maay président maay président ma xale maam njabootu maam Seydi tudd Xadi Mbay laay ga jaga di kontaan sama njaboot ji nag ndaxte nu ngi doon maye ay ndox mu gi nuy jënd ay taaya bu asoo di ko séddale léegi tey teg nañ fukki mbana nu ngi teg fukki mbana di ko sarwi jaami yàlla yi rek yalwaan moom dégg nañ ko fu ne waaye dañuy yalwaanal di jëfal baay laay yalwaanu nu di dugal si suñuy poos dinañ yalwaan naan nag ndax lu jëmee woote Baye Ablaye bii nga xam ne moom la sumboot si baayam di ko yéene ko si maamam wóor na yàlla dina yalwaan di si def fu nu mën a dem rek pour wooteem bii jem kanam fa mu liggéey na li muy liggéey ba toog ñun ñii nag di sët yi ak sëtër bi ñooy fas yéene tax di fas yéene liggéeyal ba tax fa Baye Ablaye fa mu nu teg nu tegu fa di ñaana ñëpp képp ku dib daayira lay ñaanal sa njabootu maam Seydi fu nu bëgg ak yal na leen fa ñun ba nu àgg ànd ak jaara caw rek ànd ak eh, mm, jibi caw ñi si des ñëpp caat ba si taw na ngi gërëm ñëpp ndaxte nag ba ne kuma door danoo dem si sëñ eh, si soxna jaar mu ne góorgóorlu leen njabootu maam Seydi tànke kanam waaye dootu nu am tànke ginnaaw na dem si Djibi Thiaw mu ne ma yéenay samay maire yi daayira te nag fu ngeen bëgg a àgg yal na ngeen fa àgg si barke ba Ablaye ñeneen ak ñeneen wax noonu jërëjëf man sama xol dafa fees sax mënu maa maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen sant nag yéen seen liggéey yu rafet yi ngeen di liggéey yal na leen yàlla may lépp li ngeen si ut yal na leen ko yàlla may si barke bi yonente bu tedd kontaan naa jërëjëf jërëjëf waaw salaamaaleykum ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli si maam Baye Laye wa salaam ñi ngi ñaanal suñu yaakaari tey ak ëllëg Seydina Ba Abdoulaye yàlla na fi yàgg ya lool tànd ak wér ak mboolem njabootu Seydina Limaamu gi yëpp waaw di wax si turu président Soxna Anta lay Fay mu ngi sant bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla ren mooy juróomi at yu daayira bi soso mi daayira njabootu Maam Seydi ñu nekk si na di liggéey liggéey bu am solo liggéey bi ay xale ñoo ko ñoo ko jiite boo xoolee daayira ba fii ñi nekk si waañ rek ñooy suñu meel ni sante yalla yàlla di ñaanal sunu serigne sunu xarit serigne seeni laay mu yag fi lo tan dag wer di ko ñaanal rakam ju baax ji serigne jibi caw laay doomi abdoulahi ya na fi yag lo tan dag wer di sante ñep di wax ñep ni euh, njabootu mam Seydi amul dara lo xamanteni ni moom la liggéey lu gën Ngédiaga ñun Ngédiaga la nam moom la ndax seyna Limaamu bi mi ñëwé fi ni ñetti fan la fi def euh, sanga bu tedd be di khalifa general mi Seydina ba abdullah Thiaw moo ñaanoon ñaan gi ñaan gi nag ñun sentir nañ suñu bopp bu baax a baax di ko ñaanal moom mu yàgg fi lool te ànd ak kontaan nañ tamit ci seetsi bi ngeen ñu seetsi di ñaan rajo bi yal na ko yàlla def rajo bu mag télé bi tamit yal na yàlla def mu doon ay télé télé bi ngeen ñëw Malika samp fi tamit seen réseau si barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam alhamdulilah. waaw comme ni ñu xamee rek jaboot bi moom gis nañ ko gis ñoo ko gisandoo. ay xale yu ndaw lañu ñu nekkal leen ayaay yaay dagale leen ñoom dagale seen bopp ñoo noonu leen nekkal yaay diine Seydina Limaamu nag noonu la xale bu juddu rek yow yaay teg sa bopp si diine Seydina Limaamu yaay woo sa bopp si diine Seydina Limaamu diine Seydina Limaamu nag yaatu na yaatuwaay goo xam ne boo ca xoolee xale yi rek mag ñi fekk si leen ñoo ngi sant yàlla nag bu baax si diine ji ñu nekk nii ndax fi mu nekk ni ay xale yu ndaw lañu waaye taxawaaluñu seen ku nekk si internat bi yaa ngi si daara ji ku si nekk si daara ji yaa ngi si si si saa su nekk daal si kar daal lañu xëntawoo jaamu yàlla xale lu mu ndaw ndaw ndaw boo ko joxee sa dara mu jàpp julli si kar la xam saaga sax habitude toobuñ ko coow habitude toobuñ ko musique it bëgguñu ko dañuy gêné li ñu gën a neex daal mooy si kar si kar bi daal moo ñu neex ndax fii ngeen ñëw tey seen aliments ba dafa ñëwoon ak coono te ban koy wër nëbbatu dafa génn wan leen boppam comme dafa génn nag wan leen boppam ay xale yu ndaw tuuti ay sët sëtaat ñëw ñëw ci ngej gi ñoonu ko gën a soxla ñun ñi nga xam ne seen yaay la ak seen man nag kër seen Maamu Jaxate laa bokk ca ngaa xam macha allah ku ne ngaa xam rek xam nga kajoor ku ne kajoor rek xam nga seen alimaam Seydina Limaamu moo ngi fépp moo ngi fekk ñu ngi koy sant nag diina jii mu ñu indi taataaral ñu ko ñu ngi koy sant bu baax baax a baax a baax ñu ngi koy sant ndax suñuy doom naan nañ ci mënoon nañ nekk si mbedd yi taxawaaru mënoon nañ jël sàngara si mënoon nañ moom daal mënoon nañ dundee loo xamante ne dañuy soxla waaye sant nañ yàlla bu baax a baax gis nga xale yi nunu toll ba ñu xëyee ba léegi dañu si kat biig ba tey dañuy si kat sol ñu feen lii la ñu xam jot wax lu baax zikar fama ñoo ngi koy sant nag seen ba yëkk rek asalaamaaleykum mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu njabootu maam di ñooy nuyoo di sant di gërëm nag bi ñu sante yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di Seydina Issa Rohou naa Limaamul Mahdi yi mi nu yaakaar ñi ngi góorgóorlu bu baax na ci diine ji lu ñu ci man lépp lu bàyyi laay digaloon rek dañ cee fas yéene aw ba jeex tàkk ñun nag njabootuk maam Seydi lañu xale yi ndaw yi ñoo nekk njabootuk maam sey di nañu def leen sunu yaay ñu def leen seeni yaay ñi ngi daw ci diine ji nag yokk ba kanam ca kaw ca kanam rek nag yokk ca kaw ca kanam rek képp ku ci def sa dërëm ren bu déwénee di nga am lu ko ful ñi ngi ñaan yàlla nag wér ak ak wérle dem ci ba jeex tàkk nag ba kan ñu fekk bàyyi la illa yéen moom la ñu fas yéene dawuñu ci dara nag du sanu doole du sanu kantan du sanu dërëm du sanu leen li ñuy ñaan yàlla daal wér ak wérle le rek la ñuy ñaan di ci daw ba jeex tàkk wasalaam waaw liggéeyal bàyyi